may ma ndam loolu tax ma woote tey di ñaan àdduna bi yëpp ñu sant le ma yàlla tey bisu sant yàlla la bisu julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam